Oui, je vous remercie, Madame. Je voudrais, avec l'autorisation du Premier ministre, apporter certaines précisions relativement aux aspects sécuritaires. Le Premier ministre a déjà le décor il a indiqué de façon très précise que des travaux sont cours entre nos différents ministères concernés sous son autorité et sous sa coordination. Naturellement, il y a une réponse qui est prévue et qui sera dans les prochains jours mise en œuvre. D'ores et déjà, je puis annoncer que le chef de l'État a décidé de la mise en place d'une police des mobilités, police dédiée spécifiquement au BRT. Ce sera une compagnie spéciale comme nous l'avons vu euh, pour le TER, qui s'occupera exclusivement de protéger les passagers, mais également les bus ainsi que les, différents, euh, les différentes infrastructures liées au BRT. Mais avant d'en arriver à cette phase de protection active du BRT lorsqu'elle sera mise, euh, lorsqu'il sera mis en service, il faudra au préalable, et c'est l'urgence, assurer la protection des travaux en cours. Donc euh, c'est ça que je pourrais dire sur ce point précis. Alors, mais vous me permettrez quand même, avant de poursuivre en Wolof, faire une précision. Parce que depuis quelques euh, jours, il s'est installé au Sénégal euh, une controverse sur la diffusion de certaines vidéos. Je voudrais ici aussi annoncer qu'une enquête a été ouverte sur de tels faits. Et euh, chaque partie ou en tout cas chaque observateur peut amener sa part de vérité. Mais il appartiendra en définitive à la justice de dire la vérité sur tout ce qui s'est passé. Voilà ce que je voudrais dire comme précision sur des controverses qui peuvent jaillir ça et là. Et ensuite, repréciser que ce ne sont pas des controverses qui sont propres à notre pays. Aujourd'hui, j'ai regardé d'ailleurs sur l'international qu'il y avait une controverse sur les campagnes de désinformation qui Voilà aussi ce que je pouvais apporter comme, euh, je voulais apporter comme précision supplémentaire sur euh, la controverse qu'on a notée depuis quelques jours sur la diffusion d'images et qu'il appartiendra précisément à la justice saisie de l'affaire sur instruction de son Excellence, Monsieur le Président de la République, mise en œuvre par le Premier ministre d'apporter toute la lumière sur les faits sus-évoqués. kon ci wolof bu ñëwaatee ci wàllu kaaraange gi lan lañ mën a xaar ci yéen euh, fan sant bu baax ci maa ngi lay sant bu baax ci laaj euh, bi nga laaj euh, ci ndigalu premier ministre euh, mi nga xamante ni moom mooy suñu kilifa jiitee ñu dafa am loo xamante ni bëggoon naa ko indi leeral wax na ko léegi ci kàddoom lépp li aajo woon leeral ak ajo expliquer premier ministre expliqué na ko wax ñu tamit jox ñu ndigal ñi indi ay leeral yu gën a xañ na jàppandi ci li nga xamante ni mooy wàllu kaaraange soxal berte bi. président de la république son excellence Macky Sall jël na dogal dogal bi mu jël mooy indi benn euh, compagnie boo xamante ni liggéeyam du doon lenn lu dul saytu ak aar BRT bi aar BRT bi ci bus yi aar BRT bi ci gaar yi. aar berté ci yoon bi muy jaar waaye aar berté bi ci liggéey katam waaye tamit ci sénégalais yi nga xamante ni ñoo ko nar a jëfandikoo loolu mooy tontu bi nga xamante ni président de la république son excellence Macky Sall indi na ko waaye loolu yeggseegul loolu mi ngi ñëw bu fekkente ni euh, berte bi tàmbale na daw mais laata muy tàmbali daw am na lu gën a jàmp li gën a jàmp mooy gis nañ euh, manifestation yi amoon fan yi am na yenn xeetu yàqute yu ñu gis nemmeeku ko ci yenn gaar yi waaye tamit ci trasé yi ak ci feux yi li gën a jàmp daal ci jamono bi ñuy wax ak yéen mooy jël compagnie boobu mettre ko en service mu tàmbalee euh, aar lépp lu aju ci BRT bi bala ñuy yegg ci bus yi commencé daw ak war a aar lépp loo xamante ni aju na ci ak ña cay dugg ba ci diggante Géejawaay ak Petersen am na beneen euh, poñ boo xamante ni bëggoon naa ko leeral fan yi ñu génn gis nañ wax yu bëri jib ay werante jib ci ay vidéo yoo xamante ni ñu ngi koy gis ci internet bi loolu dama bëggoon tamit fii xibaar ni enquête am na ci bu ñu ubbi ci loolu l'enquête boobu nag moom moo war a leeral li am premier ministre wax na ko léegi ci wàllu nit yi faatu ñu leen di jaalewaat seen ay mbokk di massawuwaat ñi ci gaañu ak ñi yàqule te seen yoon nekkuñ ci euh, wàllu manifestation yooyu enquête yooyu du yam ci leeral loolu ci wàllu ñi faatu ak ñi gaañu waaye enquête yooyu tamit dina leeral ci lépp loo xamante ni xewoon na ci euh, biir manifestation yi may wax ni euh, ku nekk mën nga joxe sa xalaat ku nekk mën nga xool indi sa jàngat waaye dëgg dëgg dëgg ki koy indi mooy yoon mi nga xamante ni moom moom moo may atte euh, te loolu xañ na fii jamono toll moo ko indi jamono ni muy doxee dafa gaaw gaaw na gaawaay boo xamante ni Euh, lu xew tey mën nañ ko tasaare waaye am nañ nit yoo xamante ni mun nañ tamit manipuler information tey boo leen seetloo tey bisu tey bii ñuy waxee man ak yéen soo leen xoolee sur le plan mondial am na réew moo xamante ni xañ na mu ngi werante sax ak beneen réew ci campagne de désinformation bu mu wax nii réew moomu da ko yëkkati jëmale ko ci moom ci ay manipulation information en masse loolu nag moo tax may euh, invité suñu mbokk yëpp suñu compatriotes yëpp sénégalais yëpp ñu ci li ñuy gis ci réseau sociaux yi ak li ñuy gis ci télé ak ci rajo naam dañuy dem taataan segg wax leen li nga xamante ni moom lañ xalaat ci loolu waaye nañuy tey ci li ñuy gis surtout ci réseaux sociaux yi bala ñu ciy addu wala bala ñuy yaakaar ni nii la demee nañu xaar ba ñi nga xamante ni ñoo ci war a addu wala ñi ko war a saytu atte ko wax ci ñu door ci am suñu gis-gis ak suñu gëm-gëm loolu mooy li nga xamante ni bëggoon naa ko leeral ci biir boobu. waaw loolu mooy li ma wax léegi. Euh, dafa am euh, bëri na du benn du ñaar du ñetti vidéo ñëpp xam nañ ni tey benn vidéo boo ko jëlee mun nga ko manipuler ñëpp xam nañ ni di nga gis ay vidéo yu ñu coupé dagg rassemblé wat loolu ñi ko mën bëri na ci Sénégal moo tax may wax ñu tey bu ñu gisee dara ci réseau sociaux yi nañ ci tey su fekkente ni am na ay version yu ci bokkul ku nekk joxe ci li nga xalaat tamit nañ ci tey ba ñi nga xamante ni ñoom ñoo am jumtukaay ci war yoon may leen ñu war a addu ci loolu ñu bay leen ñu atte addu ci loolu waaye ku deful ndànk di nga réer te ki lay réeral loolu la ci jublu ndaxte xelam xarañ na màcc jëm ci loolu jërëjëf